a tigre de Fass Gris ñooy lay nuyu. maanaam gars yi maa fay waay. Gris Bordeaux nga indi sa poulain tey muy Serigne Ndiaye numéro 2 nan ngeen ko yabee. kon kon ñu tàmm yabee rek waaw. booy bi booy bi ndaan ndaanaan la te am nañ ci moom yaakaar trop dañuy ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas rek waaye xam na bés bi nu mu toll wax dëgg yàlla on est parce que liggéey na. loolu moom ci loolu moo am importance ci lamb dama yàlla ko yàlla defal cat nga am na ci moom yaakaar franchement. combat bi lan moo mën a may ndam day xeex wala day bëre. fulla ak fayda rek ndam lu mu laaj boo ñëwee lu mu laaj nga def ko fulla ak fayda amul bëre dóor la ñu bëre ak dóor waaw eh, moom xam na combat bi ko mën a yóbbu waaye am na ci yaakaar yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla may ndam loolu lañ koy ñaanal. buñ noppee dinañ waxtaan ci làmb Gris Bordeaux ana foo nekk. ah maa ngi sama maa ngi liggéey coow li na nag mais incha allah xolof li mu wax rek làmb day jékki-jékki rek ëmb day jékki-jékki rek daal di wërsi incha allah feeg ay fan rek di ngeen dégg ay xibaar yu bees mais gars yi bàyyi wuñ de. Gris Bordeaux day bëre ay naataangoom wala grand contre petit dafa xew. grand contre petit amul. làmb ku lay làmb boole rek nga bëri. grand contre amul mbër yëpp nekk suuf yegg nañ ci kaw léegi léegi ñëpp war a bëre amul loolu grand contre amul mbër mbër ñu ñëpp bokk mbër antu ngeen koo koo mageewul 15 ans mageewul ko 10 ans yéen bokk génération ay morom lañ njëkk a bëri la rek dara grand contre amul ay détail la loolu. sa diggante ak Balla Gaye 2 bëgg nga mu leer. loolu amaatee de. da ngeen a bëre mu am nu mu demee mu daan. co coow lu ah? mu daal la par décision arbitrale léegi. loolu la gars yi wax de waaye xam nga ni bëri moom boo déggee ñu naan diw daan na mooy wël bi gang ah dóor nga daan wala yoroon la doo suuf léegi gars yi ciy wax mais lu amateur yi bëgg la parce que amateur yi bëri na ay publicité bëri na ay promoteur yu ko bëgg ngi dem ci konam ñu ñëw ci konam ñaan yàlla rek promoteur bi jubóog ñu loolu la dafa am mbër yoo xamante ne à chaque fois dañ naan Gris Bordeaux laa bëgg a bëreel guy gi wax na ko Boy Niang numéro 2 keroog dégg nga attaque bi mu la def ne daje ngeen ci li nga xamante ne mooy euh, dëju pa suñu papa euh, euh, alaaji nu mu tuddati du sec nee na mu gis la fa mais di Gris Bordeaux léegi mag la SDE bu demee Duran. waaw loolu booy mbalak mbaal la tooñkat la ma gis naa ko ci biir armée ni maama saa waay pareegoo ma ko ah pareegu ma man de saa amoon na ay moroom ñu ko doon Balla mi bi may moom loolu la ma doon wax naan mag la maa moom moom ko doole mais bi ñu rum bi ñu defee rum kuŋ kuŋ ah soo demoon nga laaj ko lan la yëg ak lan la sentir dana la wax leneen ñun daal ñu ngi nekk suñu ruq di liggéey suñu ay rek lañ dag la plupart ñoom dañuy bëgg fekk ñu si kaw bu ñu làmb boole dañu war a bëre ak ñoom par làmb catégorie làmb mooy bëre say morom bëre say mag bëre ak say rakk. est-ce que bu booy ñaar di teg. pour Gris a mer jël Boy Niang. non moom day teg xel booy boo xamoo xamoo mbëru géwél la mbëru géwél daa mën a mbalak mën a tooñ mi ma fekk ci biir armée yi dama mbalak naan ma saa waay pare woo de boobu mi may sonn rek yàgg na ma natt nag yàgg na ma yàgg na ma peese mais du ba léegi mënu ma xam yàgg na ma peese ci côté bu ne nag bàyyi naa ko xel trop mais man it mais man it bàyyi naa ko xel bu yow man it bàyyi naa ko xel lool. mu xam loolu. mu xam ne bàyyi nga ko xel. Gris Bordeaux noo gisee wasaare lamb ci lamb. wasaare lamb ci la wasaare lamb yéen wasaare ndax am wasaare yaa am lépp. jaajëf Gris